salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sports 221 ci Ligue 1 sénégalaise lañu koy doore ak match yi nga xamante ni moo xewoon ci weekend bi la muy 17e journée US Gorée moom dafa daal di dalal Guédiawaye football club waaye Guédiawaye football club moo ko dóor benn bal ci dara Jàmbaar dafa dalal Dakar Sacré-Cœur dal ko dóor 1-0 Casa dafa dalal Génération Foot dal di koy dóor benn bal ci dara Sénéps Excellence moom Linguère moo ko dal di fekki dal di koy dóor 1-0 AS Douane dafa dalal xamante ne mooy tableau championnat bi kon nii la demee Casa Sport gannaaw bi mu dóoree génération foot moo nekk ci bopp classement bi ak euh, di 32 points génération foot moo ci topp ak 30 points AS Pikine nekk ci ñetteeli place bi ak 26 points bu fi championnat bi yemoon jamono yi Seneps Excellence ak Mbour Petite Côte dañuy wàcc ndax ñoo nekk ci lii di 13e ak 14e place bi classement bi tax bi jamono ci championnat bi nii la demee Buri Junior Samb ba tey ji gars yi dabaguñ ko ndax mu ngi ci fukki bal yi nga xam ne daal di koy dugal ci championnat waaye kii di Ngagne Fall moo ci topp ak 7 buts Alassane Diallo mooy ci topp ak lii di si bu buñ jógee ci loolu nag dañuy dem li nga xamante ne mooy ci bitim réew diñ ko daree nag ak match bu rëy bi nga xam ne xewoon na tey jii foofu la ci Angleterre ci diggante Manchester City ak Liverpool bu Sadio Mané waaye nag dañoo dal di match nul ñaari bal ci ñaar maanaam dañoo témboo kenn dóorul sa morom waaye nag li nga xamante ni moo ci xew mooy ba léegi ni benn poñ bi moo ci dox maanaam ñaari équipe bi benn poñ képp moo dox seen diggante bu ñii di Liverpool dooroon tey ji dañuy raw ñii di Man City waaye nag mbir mi demeewu fa noonu Man City sax xëy na moo na jëkk jël avantage bi ci jongante googu waaye nag Liverpool daal di koy dab égaliser lii di Man City daal di dugalaat Liverpool daal di égaliser ci beneen bal boo xam ne kii di Sadio Mané moo ko marqué kon Sadio Mané tey ji dafa daal di marqué li nga xamante ni mooy treizième biom ci li nga xamante ni mooy English Premier League bi ci saison ren bi voilà Sadio marqué na kon tey ji li nga xamante ni mooy fukkeeli balam ak ñett ci li nga xamante ni mooy championnat foofu la ca Angleterre voilà bu ñu xoolee li nga xamante ni nag moom Sadio Mané dina koy def jamono yi euh, lii di euh, Manchester City bokk na ci équipe bi nga xamante ni moo ëpp lim leen dugal ci ay bii ndax bu ñu xoolee équipe bi gën a euh, loru ci loxoy Sadio Mané mooy Crystal Palace moom daal dinañ encaissé fukki bal ñett yoo xam ne Sadio Mané moo leen ko dugal Man City ak Chelsea Football Club Arsenal ak Aston Villa mën nañu wax ne ñoom ñeenti club yi yépp ku nekk ci ñoom Sadio Mané daal dinay bi bii juróom-ñetti bal Manchester City jël na juróom-ñetti bal ci Sadio Mané Chelsea Football Club encaissé na bi ci Sadio Mané Arsenal encaissé na bi ci Sadio Mané waaye Aston Villa moom itam encaissé lu toll ci 8 bi ci kii di Sadio Mané voilà kon mën nañu wax ne équipe yu mag yi foofu la ci Angleterre xam nañu kan mooy Sadio Mané voilà toujours moom day wane boppam ci bés yi nga xamante ne mooy bés yu mag yi tey ji nag bu ñu xoolee ñii di Manchester na euh, mënoon nañu am chance ngir gagné euh, benn poñ boobu moo dox seen diggante bu ñu xoolee nag li nga xamante moo nekk ci kanamu ñaari club yi la ñuy xool match yi leen dese ndax kii ñu ngi di Liverpool ak Manchester City euh, euh, match yi leen dese bu ñu xool Liverpool xëy na moom la yoonam gën a dëgër ndax yu Liverpool match yi nga xam ne dese na ko dafa am équipe yu mag yi ci nekk ndax Liverpool la koy dooree moom dafa daal di euh, war a jouer ak ñii di Manchester United war a jouer Everton bi nga xamante ni moom dafa mel ni dafa commencé jëlaat forme gannaaw bi mu amee woon ay défaites yu mu tegale Newcastle United yi nga xam ne bi ñu jógee ci janvier ko mën nañu wax ne ay victoire am ëpp moo nekk ci quatrième tool di place Ligue des champions Aston Villa bi nga xamante ne jamono yi dee dóor équipe yu mag yi ak Steven Gerrard ñoom Philippe Coutinho Southampton ak Wolverhampton mu ñii la ñii di Liverpool daal di dese kon mën nañu wax ne ay équipe yu mag a mag la dese Man United Everton Newcastle United Tottenham Aston Villa Southampton ak Wolverhampton mooy club yi nga xamante ñoom la Liverpool dese ci saison bii foog mu jaar seen kaw wala mu xool nan lay def ak ñoom ngir war a mën a sës bi bu dee Man bu Ismaïla Sarr Leeds United Newcastle United Wolverhampton West Ham United ak Aston Villa lii mooy dégg nga maam équipe yi nga xamante ne dese nañ ñaari adversaire yi bu ñuy xool Liverpool moom la ay mbiram dégg nga gën a dëgër ci kanamam voilà. bu ñu jógee ci loolu nag dañuy dem fële ca Ligue 1 française kii di Mbaye Niang moom dafa daal di marqué li nga xamante ni kat mooy juróom-benneeli balam ci saison bile ak ñii di waa Bordeaux tey ji ci match boo xamante ne ñoom amoon nañ seen diggante ak Metz kii di Mbaye Niang kon daal dinañ ubbi caaxi beneen yoon gannaaw bi nga xamee ni kat moom yàggul bi mu ñëwee foofu la ca Bordeaux voilà mbir mi nag xawoon na dëgër ci côté am waaye nag ma jamono yi mel na ne mu ngi sooxeeku ndànk-ndànk tey ji dugal na benn bal Cheikh Niass Cheikh Niass mi nga xamante ne ancien joueur bu Lille la nga xam ne daaw ba dañu ko doon fontoo te janvier bi ñu jaay ko fi nga xamante ne mooy ci Young Boys ci Suisse Young Boys gi nga xam ne xam ngeen ne dañuy joué ci Ligue des Champions Cheikh Niass moomu ne tey yi dafa daal di marqué son premier but ak clubam boobu nga xamante ki nga xamante ni nag euh, mooy Chérif Ndiaye moom dafa dal di jógee Gostepe Cheikh Chérif Ndiaye bi nga xamante ni moom attaquant sénégalais la toll ci 26 ans nekkoon foofu ci Gostepe ca dégg nga maam Turquie doon def saison bu baax ndax marqué na sax lu moom euh, dafa dal di jógee Turquie dem na Chine Chine la dem voilà kon Chine nag xam ngeen ne gars bu ñu fay dem mooy maanaam xaalis ba xam ngeen ne Chine la euh, championnat la boo xam ne dafa bari xaalis ñoom Papis Demba Cissé jaar nañ fa ku mel ni ñoom Demba Ba kon Chérif Ndiaye dal nga maam dal di koy jëlee foofu la ca Göztepe saison bu rëy bi nga xam ne mu ko doon wane foofu xëy na lii moo tax ba ñu dal koy signé yóbbu ko foofu la ca Chine Omar Daf Omar Daf nag moom kayiti di Omar Daf kon jamono yi mën na euh, mën nañu wax ne jege na lool voilà effort yi muy def nii daal bu continuer déwén dina monter ci li nga xamante ni mooy Ligue 1 bi euh, foofu la ca France transfert ki nga xamante ni nag Euh, dégg nga mooy latéral droite bu Tottenham bi nga xamante ne mooy Emerson bi nga xamante ne ancien ndax bu yàggul dara la daal di ñëw foofule ca Tottenham kayit xibaar yi dégg na ba club yi mag yi ci Europe ñu ngi koy topp bokk na ci club bu mel ne Atlético de lool ki nga xamante ne mooy Emerson kayit xibaar yi nag li ñu biral mooy Tottenham ñoom 25 millions d'euros moom la ñuy laaj ci ki nga xamante ni mooy Emerson bu fekkente ne ñii di Atlético Madrid dañu ko bëgg signé bu ñu xoolee nag France moom gannaaw bi nga xam ne ñu ngi dëgmal coupe du monde bi mën nañu wax ne kat li nga xamante ni mooy seen attaque bi moo ngi wane boppam foofu la ci Europe ku ci mel ni Karim Benzema ak Kylian Mbappé mën nañu wax ne attaquant yu gën a ci Europe jamono ci la bokk ndax ki nga xamante mooy Karim Benzema mooy dégg nga maam leading goal foofu nga xamante ne mooy ci championnat bu Espagne maanaam moo jiitu ci dugalkat yi moom Karim Morata nekk itam li nga xamanteni moy meilleur passeur ci championnat bu Espagne ki di Kylian Mbappé mom itam nek meilleur buteur nek tam meilleur passeur fofu la ci euh, Ligue 1 française ndax marqué na 20 bi am lu toll ci 14 passes décisives voilà li nak li muy wane wala bok li ci këyit xibaar bi bëgg jàngat moy ndax du dañoo bëgg jël coupe du monde bi rek jox ko France ndax li nga xamanteni ni seen attaquant ñu ngi koy wane ci jamono bi yomb na torop voilà ak lu mëna xew daal ñaari joueur yi mom ñu ngi wane seen bop fofu la ci dénga ba am Europe voilà loolu mooy li fi gënoon fes ci kayiti xibaar yi continuez di suivre Sen Sport 221 the best sport news channel